asalaamaaleykum àdduna wërngal këpp ñëpp nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sàkku bu baax ngeen di nu ñaanal di am mbégte ak kontaan ci ànd bi ngeen ànd ñun ci Tektal TV di wax ne Tektal TV ñëwati na fii ci Paris indeeti gan gu mag goo xam ne que doon ko laaj muy kan international la ku nga xam ne que équipe nationale Argentine ci boppam ña fa doon sponsor moom ñoom a jàngandoo bokk ak ñoom diplôme doon koo xam ne que faj ak ñaan mbir yi du làmbatu ci moom. day def ruqiya di def euh, xeetu euh, ventouse boo xam ne que massage boo xam ne que amul ay tuuma amul góor maase góor jigéen maase jigéen yëpp mi ngi ci Nord Foire fi taqaloo yëngu leen mais moom nag international la saraxule la saraxule ku ko wax xam ne mooy borom France mooy Sissoko Habbatu Sauda S S S Sissoko Habbatu sawda ci biir Tektal TV ci Paris Tour Eiffel Sissoko Habbatu Sauda ñu ngi lay nuyu lay nuyu ak àdduna wërngal këpp bi lay seetaan ci fii ci Tektal TV ci Paris bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa sallama tasliman kasira hmm. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk àdduna bi képp ku ma déglu si foo nekk mënta nekk si àdduna bi ma hmm. nga ni ku nekk si tur ak sa sant ndax du julli rek ñooy seetaan. Mhm. àdduna bépp ñu seetaan. TV ngeen abonné Tektal TV bés furus bés kolos émission bu ñëw ngeen am ko kum neex nga abonné kul neex bul abonné abonné doo ci fay dara wax luy sa mbokk saraxule yi ci saraxule pare. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maarin sonin ko maarin xammu kaano naka sukuñ bes togonda jammo nga mm. nasi noko sulenki ngama sun kan xanne ba ko mpatenta ba kamedi mm. bari lenkini olofon émission ñay pari noxondi asumake tu oloho ñani mhm. toujours ani invité na dakar nga bakka agala ningol len koy soronga len ko dake adin ti pari nogondi mati sere sugal si soxo alle ammari mu ñawari bari lahi i émission kita nkana koy dakarun konga mhm. aywa an nawari mogo siri maren sonin ko maren xarmo xano xado xa marque kano dome si soxo habatu sauda xaxana en produit soxo bano xana hay est ce que marque ngay mi marque ngana su keñani keñani Sissoko original. am il a para ñi ñaata. waaw xam nga dama damaa ñëw yére yi. Ah. ñëw logo bi ci biir ñëw logo bi ci biir. waaw lii pour mu doon près du corps. pour wane wane ne bëgg sama produit bi. da nga bëgg sa produit wóolu ko bëgg sa marque bi. bëgg sa marque bi. ko nëbb fenn ko roy xam. ko ko roy roy du nu. damaa bëgg sama marque bi. Mhm. damaa bëgg sama produit bi. fekk ma dem aéroport si digg tubaab bi waaw si turkish yi mhm. si arabe yi mhm. damay ak yére bi mhm. fu nekk ma wane ko ñuy liir sama lii espagnol yi nangul nañ ma ko waaw sénégalais nangul ma ko waaw adduna yëpp nangul nañ ma marque bu baax bi waaw kon képp ku jënd produit na nga xool bi bala nga jënd produit bi ndax man produit bu bëri lay defar bu produit bu bëri lay defar di wax ne président Macky Sall kii ku mar a jàpp ku mat a jàppale la ndax ñim doon jàngandool seen réew dañ leen a dooleel màggal sargal leen yëkkati leen jël def leen ba nga xam ne que lu ne mën nañ koy def ba ñenn ñi ay équipe nationale u Argentine sax ci sponsor yi leen bokku kii nag lu baax la yor te mën naa faj ñu bari te lim yor euh, dar bi day jeex da koy faj daal la boo xam ne que dafa ànd ak sell ak rafet ak euh, lu jaar yoon daal lépp lu baax rek mi ngi ci kon si soo xabar sooda gëstu gëstukat la am na ci lu ëpp cinquante nanga produit wala mat na soixante léegi cent cent nangam. cent et quelques. cent et quelques produits yu bokkul moom la Sissoko Habbatu Sauda am Sissoko Habbatu Sauda nag ku bëgg mbiram euh, moom nag saraxule bu miine France la numéro yi maa la ci jox rek yéen bi ni ci écran bi noonu moom la dafa 77 661. 52 32 77 651 60 52 32 bindal maire bu dee mënul bindal boppam. 661. 661 52 32. waaw boobu mooy bu ñu. bindal maire bu dee mënul bindal boppam paa bi bët yi neexul ki wax ci saal bi mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir tegtal mooy daw ñu koy defee fii ci euh, Paris ak SHS Sissoko Kabod Sawda wala Isaka Sissoko 77 661 52 32. beneen bi 77 145 53 53 77 145 53 53 yeneen yaa ngi noonu bindal naa la ko nga bu dee nag da nga soxla produit dem jëndi demal fi taqaloog yëngu leen nga ñëw foofu rek nga jënd produit eh, ñu jaay ko am na asalem ah, am na Medina ci jiite am na am na Kër Massar am na Kër Massar. si Auchan bi si Auchan bi ak fan ak. Saint Lazare bi. si Saint bi waaw. am na fépp ci àddina bi am na Bakel am na Bakel. am na Nouakchott. am ah, na Nouakchott. am na Nouadhibou. Nouadhibou. am na Serekunda. Serekunda am na Banjul. Banjul am na Abidjan. am na Abidjan. Abidjan fi nga xamante ne mooy grande mosquée bi. ci suuf grande mosquée bi ci suuf. waaw am na Gabon. am na Gabon. Gabon fi nga xam ne mooy Petit Paris. Petit Paris. waaw Petit Paris galerie Zamzam. galerie Zamzam. ngi foofu tamit. am na France fi. am na France fi France ci fan la nekk. am na France Aubervilliers. waaw am na Aubervilliers. Aubervilliers ak fan foofu nekk produit yëpp nga fa. maire de Santois. maam. Mhm. am na La Chapelle. waaw am na fa bëri daal. kon ma Dame Fall dégg ko. waaw ah. Sayer Fall am na Espagne am na Espagne waaw. am na Saragossa. am na Allemagne tamit. am na Allemagne. amul Celta Vigo ah. South Africa. waaw jeex na ko mais nag am na ci Dakar Sénégal Tektal boutique Oumou Ndour nekk fa ci wetu station Xaar Yàlla numéro bi 77 108 51 51 cinquante 51 51 ku bëgg produit si soxo xabar soda yëpp dama tegtal boutique rek. nga numéro yaa ngi noonu nga jël ko di nga ko am bu baax a baax. macha allah si soxo xabar soda. dëgg émission bi dafa ànd ak miracle. macha allah parce que dañ ko bëgg a def. si soxo ne mi ngi Turquie mi ngi Dubaï mi ngi Réunion mi ngi nekk ak ponkal yi ndaanaan yu mbokk yi international yi nga nekk ak ñoom. ma sonol la sonal la sonal la ba nga dagg ci sa temps ñëw nangoo def émission bi nii bu baax a baax. pour jëriñ parce que dama laa fekk sa dëkk bi nga xam ne que yaa ko miine ak saraxule yi ku ne saraxule na France ku ne saraxule ni si soxo xabar sawda ak jàppalente bi ngeen di def ak nga xam ne yow saraxule yi rek bu doon jënd sa bagage doy na léegi nag Sénégal yi ñëw bëgg koo xëccoo wala fi bëgg ñëw xëccoo ko euh, saraxule yi mooy wan ne li nga yor baax na kon ñëwal ci liggéeyu si soxo carrément xabar sawda li mu undi ci njëriñ léegi nag man damay ñëw spécial ci sama xarit mooy pompe bi nga wax ñu lan mooy njëriñal pomp bi alhamdulilah Cheikh dina la sant bu baax a baax mhm. bala may sori waaw ndax su may mbokk ndongo daara laa jàkkaarloo télé bi mhm. samay sëriñ samay xarit. waa Fass Touré. waa Fass Touré ginnaaw ma nuyu sama ñaari waajur ba pare. Mm-hmm. ma nuyu sama cheikh sama sëriñ sama papa sama xarit mooy cheikh Abdou Aziz Touré. hafizahullah wa raa ko yàlla sàmm. may ko fan ak wér gu sama papa bu baax mm-hmm. ak képp ku jóge Fass mm-hmm. ak bépp ndongo daara bu may seetaan. ak doomu daara bu may seetaan. ak sénégalais bu may seetaan. ak fépp foo si Afrique adduna bi. nga bëgg si soxaba si soxaba moom yemutu si saraxu lii mu ngi si olof yi mu ngi si njaago yi mu ngi si pël yi mu ngi fu nekk bambara yi ba Mali. Mhm. kon ñun international lañ. kon mhm. tey jii man ñaari président laa am ñoo xam ne ñoo ma gën a jege ña nga Macky Sall. Mhm. waaye bul fàtte Adama Baro tamit. Adama Baro kon ko fàtte bu baax a baax a baax ci jàpp maa bu baax sama xarit la sama wëllëre la. dëgg la Gambien la. maa ngi tukki dem fu nekk si àdduna bi. waaye hmm. sénégalais laa tamit. sénégalais ndax hmm. li ma am Gambie loolu laa am Sénégal. loolu nga am yow daal benn tànk baa ngi Gambie Mali. ñetteel baa ngi Mali. waaw alhamdulilah rabbil alamin. Hmm. kon maa ngi bu baax. maa ngi leen sant. waaw Tektal TV naa bu baax a baax. kontaan nañ bu baax a baax. effort yi nga def bi nga mën a am fii tey. foog ma wax ko gars billaahi dégg ngeen ko. foog ma wax ko gars yi gars yi déglu ko. Mm-hmm. ndax Cheikh bëgg na képp yónnee sama produit. Mm-hmm. bu am wér yal na yal si yàlla bindal la tamit tiyaaba. amiin amiin amiin ndax man nit ñi mënuñu ma fay. li mm-hmm. ma leen defaral kenn mënu ma fay. macha allah dañuy weccante tuuti la nga jox ñu weccet bu tuuti. nga feebar feebar bu métti. ñu njabar la ñu liggéey la nga sonn nga feebar. nga ñëw ñu jox la garab boo xam ne daf lay faj. waaw nga wér. mu nga taxaw nga dox sa dox. loolu mënoo amoo fayam. amoo de billaahi feebar bi nga xam war nga fi ay cinquante millions. Mm. nga ñëw fay. même mm. pas cinquante mille nga wér. kooku mm. amoo su fayam. amoo fayam nga mun a gis dara nga aar sa bopp. feebar yi bëri. ak liggéey bu bëri ak njabar bari ak korte ak feebar munu am doom. nga am tension. ñu njabar la sa bopp di métti sa di métti mënoon a lew guddi. ngay tiit sa di métti mun a am doom yaa ngi may dégg. xol bu métti naqar. tëju tëju ah, cat jàpp la nga ñu si soxla mu jox la benn pompe mu dindi ko. mu jox la alxayaat mu dindi ko mu jox la li ñu sàngoo mu dindi ko te bépp garab boo laal nag si alxuraan ak sunna la jógee. ci alxuraan ak la jógee macha allah. mu doon lox mhm. pompe bi. waaw miracle bu la. pompe bi waaw ñëwul ci n pompe mu ngi fii France man pompe moom dama koy yor fu mu toll moom. pompe bi boo ko yoree na nga tëdd nga nelaw. nga tëdd nelaw. boo jógee suba teel ba ko pompe sa yaram. waaw liggéey mënu la jot. liggéey mënu la jàpp. déedéet. Mhm. ndax li toj liggéey li yàq liggéey moom lañ jël. def ko si biir xam naa ñu ma bi la. Mhm. boobu benn la waaw. boo ne du nelaw guddi mën na la jàppale nga nelaw. da lay jàppale nga nelaw booy tiit. Mm. daf lay ko mm. bu fekkee da nga diis. waaw bu dem def sa liggéey sax doo mën a daf lay dimbali. daf lay dimbali doom maa macha allah pompe bi moom miraculeuse la. Mm. boo xamante ne man sax mënu ma ko expliquer nit ñi. mënoo ko expliquer. yaa ngi may dégg am na ñoo xam ne sax dañoo toogoon. seen jëkkër ak ñoom. yoon bi. dan toog ay at yu bëri seen kii pour sa téléphone sa problème la. Mm-hmm. waaw bu ñu nee pompe bi. waaw mujj na leen woo. waaw lan moo ko di ndax dafa amoon liggéey. dafa amoon liggéey pompe bi moo tax ah. si yow. Mm-hmm. jinne bi daw bàyyi la. jinne bi daw bàyyi la am jàmm. nga am mais pompe ku ni ma koy def man damay naan café boole ci. waaw amoo bépp da koy pompe sama biir sama bopp sama fu nekk. pompe bi boo ko pompo. waaw dafa am ay garab yi fa nekk boo xam ne yàlla moo ko wax si alquran. waat si waat ci yooyu leen jël boole ko si pompe bi. moom lañ boole ci pompe yéen wax si yooyu. Mm-hmm. am na yoo xamante ne bi mu ngi si alquran. Mm-hmm. kon di nga may Sayer Fall suba pompe bi Sayer Fall dina la ci may. man dinaa la wax may ci ah. la wax ne. Mm-hmm. dinaa la wax ne. waaw. Eh, pompe bi. waaw. dafa barke. dafa barke. ndox sam-sam bi rek barke la. sam-sam dégg ngeen kon pompe bi ndoxu sam-sam rek barke la. wax ak ba neexam. Ah. lépp lu mu wax yàlla moo ko wax loo. yàlla moo ko wax ñeenti sasaam garab mm. def nañ ko foofu. def nañ ko yàlla wax si alquran. Mm. tuddi àjjana xat yi neex si àjjana. Mm. yooyu yëpp mu am na yoo xam ne am na am na mandarga si àdduna bi. am na mandarga ci àdduna bi. yooyu am ko ba dugal ko si biir garab bi. dugal ko ci biir garab bi lépp la ñuy wax si. télé bi lépp la bi. waaye garab bu baax la ñëpp war nañ fexe ñu am ko. ndax France bi moom. waaw macha allah. macha allah pompe bi ku ñëw sa kër. Mm-hmm. bu fekkee dafa am lu bon sax yenn bu annulé sax. waaw. yàlla mën a jàppale kooku su sa sa kër. kon waa France jërul ngeen di sonn ci CPI di kii pompe bi am na fii ci biir Paris. ku ci bëgg a jot numéro yii ma la bindal ci écran bi jaar fi rek di ci jot. ku mën di doon ku nekk ci Europe bi. am na 25 euros rek jaamu yàlla. <laughs> jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi. kenn bàyyi xel ko bu baax a baax pompe si soxna Xabat Sawda bi pompe bi jigéen mu wérul ak baax na ci moom. Eh, Cheikh. waaw jigéen bu wérul. Mm. jigéen boo xam ne mën na jël ëmb. jigéen boo xam ne dafay tiit. waaw dafay ragal. waaw wala bopp buy diis. Mm. wala muy xaj si liggéey kaayam. waaw pompe bi nu mu mën sa man mënu wax lépp. mënoo wax lépp man léegi nag si ak yow. li tax ma am fi émission te ma tax nangu taxaw si seddaay bi fii. taxaw ci seddaay bi fii. seddaay baa ngi may dugg waaw. te man du ma def li biti Paris fii. billaay mm-hmm. doo du ma doxantu a man géej naa fii. waaw ah. changé fii. Mm-hmm. mat na quatre ans. quatre ans. par cinq ans ñu ngi si gis ngeen de ren cinq ans ren man taxaw ma sensibiliser fii. man maa leen di lii trois mois ma ñëw France fii. Mm-hmm. deux mois trois mois ma ngi France fii. Mm-hmm. mu ngi taxaw ma sama tànk fii. ma fi andi. maa ko fi indi de billahi sama nit la. benn li ma leen wax tamit. Mm-hmm. Eh, Cheikh. damaa nekkoon Paris fi nga woo ma. ma woo ma ne ko aw ma jot damay dem. da ngay dem Turquie Turquie dama am. réunion da ngay dem Dubaï réunion. dama am réunion foofu pour trois jours. su ma fa jógee damay dem. fële Dubaï. Dubaï. après ma dellu si waat France. Mhm. waaye mois de octobre lay doon. Mhm. Euh, novembre lay doon. novembre 10 novembre. te tey ñu ngi si 18 octobre. mu mhm. ne Cheikh man a ma jot. nañ ko bàyyi beneen nga ne ba beneen yoon. ba beneen yoon. sa yéene bi yàlla mottali ko. yàlla mottali ko. ma ñëw ma dem ma nekk Dubaï. Euh, astafurla ma nekkee fële Turquie. di avion yi dem rek ma publier ko rek. sama partenaire woo ma ne ñu ngi ñëw rek ñoo. Paris. Paris boo xam ne pour war a lekk la war santé la. ñëpp mm. nga fekk ko ndax de comme yaa ngi seet Mali yaa ngi Paris fii. Mm-hmm. te juróom benn junni stand war nañ ko fa am. war ko fa am. te fu ñu ni nii ba cinquante mille personnes. Mm-hmm. war nañu visiter. Mm-hmm. kon fexe fexe nga ñëw. fexeel nga ñëw. léegi nag bu ma doon ñëw si yoon bi nag. ma woo la ma ne ko Cheikh ah maa ngi ñëw Paris danga ne ma man tam ngi ñëw. nga jël Espagne tey. ñu ñëw fekkante fi ñu fekkante fii loolu. Hmm. def nga effort. def na effort man tamit def sama effort. yàlla jàpp ci ah. yàlla jàppal li ñu. Hmm. ba li am tey. Hmm. Cheikh dafa bëgg a wane ne si soxo doole bu mu am Afrique lu ëpp loolu am. Europe moom lu am Europe de il moo tax ñu koy ñëw di ko gis ndax ku ne saraxuleeg mbokkam. dëgg la ñoom Konaté bi nekk Liverpool yëpp jàpp leen ci si soxo bàyyi leen ko kii seen mbokk la. bu leen ko sàggane jàpp leen ci mbir yi Adama Barrow jàpp ci président Macky Sall jàpp ci ndax lu baax la yor man du ma ànd ak kuy dóor ma xam ko ku yor dëgg ma ànd ak moom damay ñeme gis ngeen ni ma nekk en l'aise damay xam ne nit musuma kalaame ak Sissoko Sissoko mën ngaa dem faj sa bopp dem ci ñoom Fatima ñoom Fat Jaxate ñoom Malick jubali fi taqaloog Nord Foire foofu fi taqaloog yëngu leen ñoom Basir ñëw rek jiite ñëw jënd li nga jënd am ci sa bopp noa choc ah wala nga dem Tektal boutique cent huit cinquante et un cinquante et baa ngi noonu ci te euh, station xaar nga jël bagage Sissoko xabar sawda wóolu naa ko sama boutique du lu ne fay dugg kon njëriñ leen bëgg bu baax a baax. kon pompe bi daal jar na njëgam man pompe bi dama ko fan moo tax ma ciy dem. bu baax a baax France ñaari grade bi moo fi gën a jar. ban ak ban beneen bi. karité bi. karité bi. karité gaa si soxo bi. gaa si soxo bi. mooy Issa Asi soxo su mam laa ko tuddee. suma turandoo. gaa si soxo dégg ngeen ko. karité boobu li ma si dépensé bari na trop. bari na trop. Eh, Cheikh waaw. quartier boobu waa France fu ñu toll waaw quartier pompe bi. Mhm. ak cuuraay bi bu ñuy cuuraayee pour cuuraay setaane bi. waaw moom mooy gën a jar France fi. Mhm. dañ ko bëgg lool. Mhm. te ñuy respecté nañ ko lool. te suñu sañoon tey ñëpp am ko seen kër. ñëpp am ko seen kër. waaye Saraxule moom. gàcce ngaalaama. gàcce ngaalaama. soo yi. Ah. gàcce ngalama gàcce ngaalaama. ba ma woote Paris. waaw ñu fees del. six mille personnes. waaw dañ ma ñëw wuy si benn bés. benn bés. ndax ma macha allah xam ne sama valeur. waaw xam li ma mën. Mhm. bëgg ma. waaw te fonk nañ ma. Mhm. respecté nañ ma. respecté la. fii garab boo waroon pare fii nga jënd ko 5 euros. ne ah bu mel noonu mooy si soxo tamit yor ñu si si soxo 25 euros. waaw dañu romb foofu bële dem si si soxo bi. Mhm. lu tax ñu romb. ñu romb lu tax ñu romb bu 25 euros ñu dem jëli 25 euros bi. waaw ñu am kóolute. dana am kóolute. dañ ko wóolu. dañ ko wóolu xam ko. xam ko. xam njëriñ bi ci nekk. utiliser ko. waaw ñun saraxule yi pour ñu topp ñu. waaw dafa jafe lool. dafa jafe lool foog ñu seet la. ñu seet la seetantal la bu baax bu baax seet la bu baax ba xam li nga yor dëgg la. ba xam li nga yore ndax dëgg la dëgg. Mm-hmm. ku xam ba nga mën a maîtriser sa mbokk saraxule yi. Mm-hmm. amul lekk làkk si àdduna bu la ko mën a mën a maîtriser. Mm-hmm. te ñoom bëgg nañ ma respecté nañ ma. Uh-huh. ba pare ni ma respecté nag. ñi nga xam ne olof yi. waaw cër boobu laa am Sénégal. kii boobu la a Mali. Mhm. moom la a Mauritanie pël yi da nga ne ñoom a gën a bëgg saraxu lii sax. olof yi nga ne ñoom ñoo gën a bëgg sarax ñoom gën a bëgg. billaay ñoom gën a bëgg. waa Touba bëgg la waa Touba. waa Touba bëgg la sëñ Afia bu soo. Mhm. sëñ Maodo. Mhm. ñu ñëpp bëgg ma. waa Faas Touré. bëgg ma lool. di ma di ma tiitaroo. ma tiitaroo te bëgg nañ ma. macha allah Cheikh daal en tout cas li ñëpp muy Gambie. ñëpp ma bëgg. ñëpp la bëgg. kon loolu ma tax ma ne doomu Afrique laa. Mhm. doomu Afrique nga Afrique laa. doomu Afrique nga te sagu Afrique nga. te sag Afrique laa. te da ngay liggéey lu am qualité. fu ma dox. bu sa bénéfice di néew. te sa njëriñ di yokk sax daf la koy jaral. man loolu du problème si man. waaw li ma am. Mhm. bénéfice. waaw. tur bu baax bi ma am. Mhm. réputation bu baax bi ma am. ak li ma fonk ak li fonk sama marque bi. waaw ma loolu doyal na ma sëkk. ak ponkal yi ngay toogal. ñi may ñu respecté la. ponkal ponkal international yi. waaw dañoo xam ne Isaaxa mii. waaw. ah ma wax la wax. waaw dama nekkoon Turquie. waaw. ñu ma wax leen dëgg ma def Arabie Saoudite ma wax leen dëgg. Mm-hmm. ma nekk si seen biir. Mm-hmm. ñu ne ma waay yow yow yow ambassadeur Afrique nga de. ambassadeur Afrique mu ne gars yi euh, xalaat bu bon bu ñu am si africain yi. Mm-hmm. ñun yow fu ñu toll nii taxaw nga Afrique ma ne ko ñun Afrique dañoo gëm seen bopp. ñun Afrique ñoo gëm liggéey. ñun ñoo bëgg lii am na maanaam da ngeen dégg koo xamante ne baaxul rek nga yaakaar ñëpp benn lañ mm-hmm. waaye ñun ñu baax lañ ñu respecté suñu bopp lañ mm-hmm. boo ñëw si alquran afrique kenn dàquñu alquran macha allah waaw waaw gisoo soxna Ndate Cissé ca Dubaï champion du monde alquran fu ñu dem africaine fu mu dem mm-hmm. bu gëmee boppam nangoo liggéey si kanam rek ngay dëkk kanam rek nga jëm man dama bañoon wax si télé waaw bañu wax si rajo Mm. bañoon ko Cheikh mi yaa ma dugal si wax. maa la ci dugal ci it yaa ma si dugal. mais da ngaa yor njëriñ man njëriñ laa ne damay toog man si soxo xabat sawda mm. képp ku soxla di nga ma fekk sama place. dina la fekk sa place mais ma déedéet foog nga génn. foog nga génn ma topp rek ay at ay at waaw. ñeenti at ba juróomi at. ñeenti at ba juróomi at. mën naa la kaay feeñ billahi nga andi ma tegtal di ci saraxul sax pour nga feeñ waaye léegi boobu nit yi la ko bëggal. wallaay léegi léegi nag. Mhm. ma ma saraxul ba bi ma génn ak léegi. Mhm. li nga li ma doon xalaat. waaw li ma ne ñu bañ ma jaawal ak ñeneen ñi. Mhm. yàlla dogal na. ndekete woo. jaawale ñu ma. jaawale wuñ la. danga ma laaj laaj bu leer nañ. ma ne ko man gisaane wu ma. waaw damay wax defal sarax bi. doo def sarax lay faj. mu wax ñaata la lay fajee. Mm. da ngay ñëw nga jënd produit. <laughs> xaalis bu mu jar. Mm-hmm. bi jar deux mille cinq cent nga jënd deux mille cinq cent. bi jar cinq mille nga jënd cinq mille. lu jar trois mille nga jënd trois mille nga jënd trois mille nga dem faju. nga dem faju. ba pare nga dellu siwaat. nga dellu siwaat sa garab da boo ko boole yëpp dafa nekk cinquante mille ñu wax la ko. ñu wax la ko bu nekk vingt cinq mille ñu wax la ko trente cinq mille ñu wax la ko. Mm-hmm. après ñu ne vingt boo fi nekkee boo fi nekkul foo mën nekk rek. nit ki mën naa fajee boppam. loolu moo tax damaa damaa nekk à l'aise mm-hmm. képp ku nekk Sénégal. waaw nga faju ba dem yëngu leen. nga faju nga faju bu dem Medina nga faju bu dem Kër Massar nga faju bu dem eh, Mali nga faju mm. bu dem Kaay nga faju bu dem Bamako nga mm. nga faju boo demee Tektal boutique nga faju 108 51 51 man Moundour nekk Paris ma nekk fi ma ñàkk fi nekk yëpp day dox macha allah macha allah kon lii moo tax ci Europe bi fépp ma nga fa ma nangul la mm. pour nekk fi ndax man fu ma nekk mm-hmm. wane ma ne damaa dama pour wax la ne am na nit yu ma dugalal ay Wave Orange Money ay xeetu yóbbante bu pour jël bagage si soxo wax naa la ko ay yoon. jël bagage si soxo kontaan ba tax ñu defal ma loolu. tey fii ma ñi ma ñëwee nii lu ci bari du ma dagg billet avion lu ci bari duma fay hôtel dina am ñu ko rees ndax lan bég ci li ma leen indil am na ñu ma indi ñu merloo nit ñi. mais maa indi ki leen di merloo ak ki leen di bégloo lii mooy sama yéene looloo tax ma topp la ñeenti at juróomi at di saraxo pour nga ñëw man liggéey bi kafuma ci fowuma ci réewuma ci bu dee deux heures ma matin dama ci sonn da nga gëm sa bopp billaay gëm sama bopp gëm yàlla bu bëgg nit ñi am leen bëgg tëddul sonn lii rek a ma jaral lii dañoo war a gëm suñu bopp mm-hmm. ku ne gëm sa liggéey mm-hmm. sa liggéey nag foofu ngay jóge foofu ngay daanu foofu ngay jóge fa ngay daanu sa liggéey foo ko fonk rek doo daanu mukk nag sa liggéey Mm. mun na am tey. ñu ah. wala problème suba. Ah. sa liggéey ma la ko jaral. Mm. waaye nit ki da ngay xool. Mm. nga gëm sa bopp. gëm sa bopp. gëm sa liggéey. nga ànd ak ñi baax ñi. ànd ak ñu baax ñi. jeex na nga am xol. am xol bu rafet pour liggéey. waaw bés boo defee loolu. incha allah sa kanam rek. yàlla dimbali la yàlla dimbali la. du affaire bi. xaalis bëri du affaire bi. du affaire bi. nga am ambition bi. nga am loo teg sa kanam nga lii laa bëgg. am foo bëgg a yegg hmm. kenn mënu lu du yàlla rek. lu du rek. àdduna bi képp ku jóg sa kaw. Hmm. pour toroxal la moom ma jël si ginnaaw moo moom mooy dellu ginnaaw yàlla moo lay jàppale. yàlla moo lay jàppale kon ngeen béyoon xel baax a baax si soxo mag ñi nag nga xam ne que gaz si soxo bi. waaw korom ñi am problème mu tànk yëpp bu ñu utiliser gaz si soxo bi dañu am kii. macha allah gaz si soxo qualité bi waaw nañ ko jënd rek. moom te ku am bu mag mën am bu ndaw. bu ndaw li tamit foofu. ñoo yem dañ si bind ne. waaw essayé soit jugé. essayé ko nga atte sa bopp. nga atte sa bopp wa antal xakam. Mhm. try and be the judge. waaw essayé juge. boo ko essayé yow yaay jugé sa bopp. yaa ko wax ko ci saraxu la ñu dégg. ahaay. Mhm. añ ñi mën a kiitindi. Mhm. maanaam xool ko après yow nga sa bopp. nga atte sa bopp. xam ne moom kenn naxu la sama produit loolu la. sa produit loolu la. sama produit bi nga ne pour biir. Mhm. pour bopp. waaw pour bët. Mhm. pour bakkan. Mhm. wala sëy. wala am ñàkk am doom. wala faible sëy. waaw jëlal nga essayé nga àtte sa bopp. nga àtte sa bopp en tout cas daal booy wër daal wëral marché si soxor rek. marque lu bëri laay defar es es na am na ñu lay jëm a toppandoo de ñu niroog yow noonu leeral bu baax den bokkuñu yow de yow yaay vert bi ma bi di gis foofu sama logo bi logo baa ngi si côté bi jeex na logo baa ngi noonu ci yére bi su ma dugg ñu ma def si soxo xabat sawda si soxo xabat sawda fu ma dem si tubaab bi ma yor ko mm, mm, mm. ma nga si Turquie ma yor ko te yaay yëngal foire teg ci waaw man foire foire Dakar bi. waaw nañu pare. ño pare. maanaam boo fii lañ koy dóoraale sax benn boo duggee si biir foire bii. waaw na la xabatu sawda. ñoom maire Diallo nga fa. nee leen si soxo laa bëgg gis. si soxo nga bëgg gis. dama si place si sox te bu foire bi si jotee damay wàññi prix yëpp. da ngay wàññi prix yëpp. kon ngeen bàyyi xel foire bi ñëw na ak si sox xabat sawda day neex. ma ne la. na ñëw baa ngi su commencé dama fekk. waaw waaye ay quelques jours. bis mooy wàcc Dakar. waaw ñëpp a yëg ne wàcc naa. ñëpp yëg ne wàcc na su may dugg si foire bi. waaw ñëpp xam ne si soxla dugg si na. Hmm. suma stand ba. waaw bokkul ak benn stand. bu yokkut ak sa waxuñu jaay sa de. waaw ñun li ñu soxla mooy nit ñi nañu am seen confiance. confiance boo jëndul sax. amul problème. amul gis foofu. ñëwal gis lu baax la fa nekk nga xam ne si soxla moom moo bokkul ak ñeneen ñi. bokkut ak ñeneen ñi markam bi dafa baax. dafa baax certifié nañ ko. waaw Amérique. Amérique France France. alhamdulilah alhamdulilah waxatuñ Afrique. waxatuñ Afrique. Afrique waxatuñ ko. non non non dépassé nga Afrique international nga. man international laa. Mm-hmm. te marque dama ko defar marque bu baax la. Mm-hmm. foire ba nag damay ubbi foire bi. da ngay ubbi foire bi. foire bi décembre bi. waaw waaw. day toj de. day toj da nga yëngal ak yu bees sax. damay toj foofu yëpp. yëngal bu baax a baax. après nga ñëw nga déglewaat ko. après ñu ñëw déglewaat jeex na kon. kon foire bi ngeen bàyyi xel. directeur foire bi sax xam na ne. Ah. foire bii. waaw ah. Sénégal. waaw ah. si soxo ñu bëri si soxo moo tax ñu ñëw ñu ñëw ci foire bi. waa CICES. waa maa leen ko wax de. Ah. man si soxo Abat Sawda. Mhm. xam ngeen ne man yëngal naa foire bi. si soxo moo yor bayra foire bi. maanaam si soxo bu fa nekkee. bu fa nekkee mi ngi fay bëri day yëngatu. te ba pare waaw. tant sama stand amu foofu. waaw. dara du baax. incha ku dugg ci foire bi rek laajteel si soxo Abat Sawda. fan la nekk boo ñëwee di nga fa am loo bég bu baax a baax a baax ci biir foire ba nag am na bu koy yëngal bu baax boo xam ne que ñu bari kersa ñi mhm. dañuy ñëw kobos bu duut ko ñu amul kersa ñi dañuy ñëw téeg pour yëngal ko mooy boobu gan gu mujj googu noonu di dox ci kër yi jàmm di dox jàmm boobu ah. nu mu tuddati scorpion scorpion king scorpion king waaw maanaam ba boo ko jëlee benn yoon. benn yoon di ko jëlaat de. di nga ko di nga ko jëlaat. di nga ko gëj a jëlaat. di nga ko gëj a ngeen ko. ndax boo ko jëlee benn yoon. waaw di ko denc lu yàgg. di nga ko denc après nga door ko soxlawaat. dégg ngeen ko. te wàllum sey la te du lu ñuy naan du lu ñuy lekk du lu ñuy takk du lu ñuy suuroo. waaw baax na boobu moom bàyyi ko noonu. muy bàyyi ko noonu. wax li ñu koy utiliser rek wala ay code la. dañ ko noonu. ay code la dañ koy diwoo. dañ koy diwoo. waaw loolu. waaw. suy soobee yàlla. waaw. si foire bi décembre bi. waaw. nañ ma ut si. nan la wut si. bu ñëwee si stand yi. waaw su soobee dañuy si Soxaba Sawda foofu. Mm-hmm. ma gis produit bi foofu. Mm-hmm. nañ ko am prix bu yomba yomba prix bu yomba yomba yomba yomba. daanaka escorpion kiñ. daanaka wanteer la. tubaab yi jël ko naar yi jël ko. ñëpp a ngi ko jël sinwaa yi jël ko. ñëpp a ngi ko jël. gis nga moo boobu dafa yëngal jamono. di escorpion kiñ daal moom day dugg ci kër gi rek la ko. maanaam koo xam ne respecté la ci kër gi mu tax ñu respecté la benn jigéen bi nga xam ne que jëkkër dafa bari kersa mu dem wutali ko ko mu ñëw bég te amul benn effet secondaire. amul benn effet secondaire. Hmm. amul jàmm rek jàmm rek. jàmm rek en tout cas daal. waaw ñu ma lay wax si soxo. commence bopp bi. waaw ba si suuf tànk bi. waaw feebar bu am. waaw soobee yàlla. Hmm. garab da koy faj. résumé ñu ko ci anglais tuuti. from your head. Fatima nekk fi wax. up to your Mm -hmm. They can cure it. Oui. Prophet sallam say black seed oil can cure all diseases except death. Yonent mm. sallam dafa wax ne xabasa dafa mën a faj mboolem feebar. ba mu des feebar dee. Mm. commencé sa bi ba suuf tànk bi. Mm. feebar boo am mu fajal la ko. mu fajal la ko boobu xabat sawda rek nga ko mën am. xabat sawda rek. te si soxo marque bu baax lay defar. marque bu baax lay de. ay garab boo xam ko defar waaw yaa ko defar maa leen defar de. Ah. dem nga sama place ma dem gën garab. non non dem naa dem naa ñëw. man maay defar takk kii muy defar sa yaa ngi sama packaging yaa ngi ñëw. conteneur yaa ngi ñëw bi. karité bi incha allah nañ ñëw rek. mais karité bi bëgg naa nga may ci Sadio Mané de. parce que Sadio Mané dina war a faj tànk a ma wax ne. waaw Sissoko. waaw est-ce que xam nga Sadio Mané. waaw mën ko sénégalaise la. waaw xam naa ku baax la. sénégalais bu baax la waaw xam naa ne am na ku am diine la. Mhm. comme ni ngeen ko waxee. waaw ba ci imaamu imaamu kii ba sax seede na ko waaw. ñu ne ma ana doo ko gis ma ne ko su ma ko paree gis naa ko gis. Mhm. su ma ko paree gis. mun naa ko gis. waaw bu neexee man li ma yor. ñëpp ma bëgg a gis. ñëpp la bëgg gis. président yi Sadio Mané moom sama quartier boobu. waaw war na ko di ko diwoo. war na di ko diwoo. du Afrique les les présidents ci àdduna bi Afrique les présidents ci àdduna bi. waaw waaw man ma yor produit Afrique boo xamante ne képp ko diwoo. Mhm. di nga am énergie. waaw dina la faj. waaw te di nga dëgër. et eh, Marcelo numéro 12. cousin Sadio Mané déggal message bii nag yaa ngi maa ngi fii ci France bëggoon naa jaar jël la benn reportage pour ñu wax ci yenn euh, mbir yi mais ni mu demee la. da yow dañ lay denc ba ci kanam rënk la pour da war a doon avenir du Sénégal yàlla na yàlla lafal cat loolu laa lay wax bu baax a baax mais waxal Sadio Mané si soxla di nga ko jox benn cadeau naa ko ko jox nga jox ko ko bu soobee yàlla bu baax a baax pour mu diw ko ci tànk yi ballon d'or yu mag yi ñëw international Sadio Mané di ko tegle di yëngal bu baax a baax parce que euh, sorce bi jël na ballon door mais deuxième Sadio Mané bii bokkut ak ballon d'or bi de bii moo gën a valable de te nag dañ koy xeeb séntu lu ko ëpp a baax daal ngeen ñaanal ko baax saay rek baax na de quartier baax na de day a sawar quartier bi day aar nit ki sa njabar ni affaire liggéey bi da koy toj da ko def la si aar moom nga Souleymane Sané yàlla na fi yàgg tawér yàlla lay kàttanal la mais Sadio Mané moom lañ gën a fonk ci le roi Sané le baax na mais xam naa bu dayee man ci mbedd almaañ yi almaañ yi indil problème mais Ousseynou laa àndal te xam nga ko dafa day entraîne da wulli bay ba nga moytu tey war ngaa football Sénégal ah si ban ban la duggaat ci biir bagage yi euh, comme Fatima Doucouré euh, ñu ngi koy ñaanal bébé bi moom jàmm ak sama a ak bu baax a baax a baax ba fi nekkoon moom développé moom kay man bari naa produit ah, ah, léegi ban ban nga nawaat boo xam bëgg nga ñu dugg ci miel mant bi miel mant bi mu ne miel mant bi oh. boobu rek maa ko defar boobu tamit ci yi ma gënal la miel mant bi dama koy utiliser parce que boobu dafa baax ci waxkat sama saar yi nga xam dañuy wax rek am na dafa neex am nañu entreprise fi Allemagne waaw te gi sa laa jógee. waaw Allemagne dem Allemagne fii. am nañ uh-huh. fi ñoo xamante ne si man dem man ak ñoom ñooy liggéeyandoo. Uh-huh. macha allah macha allah. léegi nag pare nañ pour defar melmante bi fii. Europe fii jeex na kon dama ubbi boutique Allemagne. waaw fii Europe waaw ubbi ko Cologne ñu tasaare ko fépp si Europe tasaare fépp. ndax soo sëqatee waxal njëriñal melmante bi. mooy melmante bi waaw. boo ko naanee. moo ko naanee. booy sëqat day. day arrêté day arrêté. boo sa dënd di métti. waaw da koy ubbi da koy ubbi. boo xam ne asma. day dañ bu amee see biir bu seere mhm. baax na si am na Mood Sarr boo jàkkaarloo wal fajiri sa bërat ak a xam njëriñal boobu macha allah taalibe Seex li nga ma waxoon ci Tiwaawoon ca kanam naa ci jóg de incha allah bu baax baax a baax mhm. kon Mêle-Mante bi ngeen mhm. bàyyi xel tamit am na Tektal boutique de ca Derklé wetu station xaar yàlla Oumou Ndour nekk fa 77 108 51 51 waaw produit soxna may Jóob yi tamit mu nga ci biir Tektal boutique bu baax a baax cere yeeg muraake yeeg yëpp am baax a baax kon si sox xabat sona bi ñu jógee ci man xaar ma joxaat numéro yi. binal binal maire foo bu dee mënul binal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci saal mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir numéro Sissoko Habbatu Sauda dafa 77 661 52 32 77 661 52 32 beneen bi 77 145 53 53 77 145 53 53 SS Sissoko Habbatu Sauda. nekk ci France boo soxlaa produit rek demal fi taxaloog yëngu leen jërul woote sax bu la neexee di nga fekk Basir fi taxaloog yëngu leen. après dinañ dinañ def numéro France yi. numéro France yi dinañ leen ko bindal. ngeen gis ko ku ko soxla saa nga utiliser WhatsApp. nga kii ko bu baax a baax équipe technique Tektal TV leen àndal ñëw Paris Baye Massamba Diop ak Njifi ñëw na Paris bu docteur Wade mi ngi Paris Petit Sow mi ngi Paris ñoom soxla may Diop ñoo nag Mamadou Guèye ak Pathé Seye Sayer Fall ak ñëpp ñi ngi fii ci Paris Tektal TV ku mën nañu toppandoo ñun faruñu calme tubaab de mais ci dëgg la ni dox ba fu nu neex ci àdduna bi dañu dem def ci émission États-Unis moo ci des bu baax a baax ci soo xamante sona fan la ñu dugaat nga ne ci produit yi bu bon nawaat loolu dugal par benn léegi nan ñëw ci ventouse bi kon ba pare ventouse bi ventouse bi xam nga massage dafa yëngaloon réew mi yéen ci sala ma wax ne ah ah. yéen ci sala ma wax kaw waaw dem jëli julli waaw amal mboole malaaka yi ñuy wax waaw dañ ko dañ ko wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayka bil xijaama yaa hmm. Muhammad mur umataka bil xijaama hmm. yow Muhammad del digal sa waa njaboot hmm. nañ def ventouse nañ def xijaama dañuy dara bu bët bi seen yaram ndax dara bu bët bi su nekk seen yaram mun na yëg ci kaw te su yëgee mun na la rey mën la rey nañ ko moytu baax a baax nañ def ventouse mu dindi dara bu bon bi suñu yaram feebar yi sew yi ñu sa tam dafa wax ne eh, wiqaaya la wiqaaya maanaam eh, eh, ventouse. waaw protection la. Mhm. ba pare day faj. day faj kon ngeen bàyyi ko xel ventouse day xaw a niroog massage comme massage dafa yëngaloon réew mi. léegi nag bii nag moom bi mu yor. góor góor lay defal. jigéen jigéen a lay defal mu doon lu dagan daal. lu sell. waaw lu sell lu dagan. Mhm. lu tegu si yow mais na sof da xaw na métti tuuti. méttiwul méttiwul ah, ah. doo ko yëg sax. doo ko ah, allah kon abonné leen Tektal TV ba su ba su cloche bi émission bu ñëw ngeen am ko. Euh, bàyyi ma Samba Diop xoolal caméra bi te bàyyi tubaab yi ngay xool ah petit soo xool leen caméra bi toppatoo leen docteur Wade Ibadou la mi ngi jàpp njàmburam ngeen nekk di xool tubaab yi fii ay jigéen indi wu na fi de liggéey moo na fi indi liggéey leen bàyyi caaxaan bu baax baax baax ci biir Tektal TV abonné leen ku mu neex nga abonné ku mu neex bul abonné nga abonné doo fay dara si soo xabar soda ban produit nga ñu indiwaat ci njariñam ci sa biir bagage. waaye mën naa leen andi mix mixxaab. mixxaab xultatul ahshab waaw. boobu ay me ay gàncax la yoo xam ne dañu leen jël boole leen. boole leen ci biir sachet bi. ci biir sachet bi sachet boobu nag da nga koy baxal. da nga koy baxal. garab yi Inde yi am na fa. Inde am na fa Pakistan am na fa ñu nekk Arabie Saoudite am na fa. Mhm. africain tamit am na fa. am na fa am na garab yoo xam ne pour jigéen la spécial. pour jigéen la spécial pour jigéen boo xamante ne dafay am biir bu métti. waaw wala mënu am doom. Mhm. wala problème mu am problème biir. wala mu am xet bu bon bu jóge si moom. waaw wala dina la nelaw bu baax. Mhm. wala mënu am doom. waaw dafa gaaw si loolu. dafa gaaw ci loolu dafa raxas bi nga set wicc. raxas ba mu set wicc. moom mooy mix xaab boo ko naanee. xet bu bon sax du ko am sa yaram. xet bu bon sax du am sa yaram. déedéet sa deret circulé normal. ëpp na fukki euh, gàncax. a ak juróom. waaw wala ko ëpp yëpp mu ngi si boobu. mi ngi ci boobu. boobu daal bëgg naa ñëpp am ko. ñëpp am ko. ñëpp am ko seen kër. ñu mhm. ko utiliser. di ko utiliser am nañ huile d'olive. huile boo xam ne olive oil lañ wax. waaw zeytun. zeytun moom mhm. lañ koy diwoo. Mhm. si jàng alxuraan ba pare ko xabat sawda boo ko diwee sa yaram sa yaram sax da nga koy sentir ne mu ngi génn. da nga koy sentir ne mu ngi génn. sa suuf tànk sa yaram nga oyof tooy nga ñelaw baax Uh-huh. boobu olive oil lañ koy wooyee mm-hmm. yàlla si wàcc si alquran wa tiin wa zeytun wa tiin wa zeytun boobu nag dafa am doole dafa am doole dafa baax lool mm-hmm. surtout marque si soxaba sawda man dama bëgg ñu bàyyi xel marque bu baax ñu bàyyi ko xel marque bu baax marque baax a baax marque SSS dañoo bëgg si soxaba sawda dañoo bëgg ñu bàyyi xel marque bu baax a baax a uh-huh. boo fa jógee waaw année boo xam ne quoi women secret waaw maanaam secret jigéen jigéen ñi jigéen xam ne dañuy te duñ yëg bànneex duñ yëg bànneex uh-huh. am nañ boobu tami Mm. jigéen ñi sëy ñu amee métit métit <coughs> jigéen bu am doom du am soow du am soow yaa ngi dégg ah. am nañ boobu tamit am nañ boobu tamit am nañ boo xam ne jigéen tamit pour seen parti bëgg a yokk seen parti bëgg a yokk parti ah, ah sa yooyu ah, am nañ boo xamante ne bi naturel la naturel la baax na lool kan da ngeen ko jigéen bëgg a yokk ans jigéen yu wow yi koŋ te bëgg a kii si soxo neen bu ngeen ñëwee di ngeen am lu kawe njort bu baax a a boo xam ne Zeynab Oil. Zeynab Oil. Zeynab Karité. Zeynab Karité. am nañ ko. Mm-hmm. am na yëpp. am na yëpp secret Zeynab.

am nañ ñoo xamante ne bi mënuñu am doom ñi mënul am doom stérilité lañ koy wooyee mm. góor boo xam ne sa ndox bi ndox bi dafa bëriwul dafa wala booy mm. du am bànneex mm. wala sa ndox bi du bari boobu boo ko jëlee dina tax sa ndox bëri day tax sa ndox bëri ba pare da koy defar ba pare boo mënti am doom tamit dina dimbale ngay am doom bu baax a baax nga mën am doom léegi jigéen bu dul kii nag jigéen boo xam ne que day gis règle mm-hmm. muy retard wala du normal wala yooyu itam am nga lu ci jëm am na am na mm-hmm. am na misk bi misk bi Euh, kii mu ne euh, siwaak bi. am na poudre bi poudre bi. am na omen secret bi. Mhm. am na mixaab bi. mixaab bi boo jëlee yooyu nga boole ko. waaw nga jox ko jigéen mu koy naan bi mu koy baxal. waaw bii mu ko def si ndox bu tàng bi di ko naan. Mhm. ah dina baax si moom loolu de. dina baax loolu. am na fenugrec boo xam ne fenugrec si soxaba sawda la. fenugrec la. am na huile bi. huile bi. yemuñ si huile bi rek. waaw. am na bi nga xamante ne bi tamit. Mhm. moom mooy poudre bi. mooy poudre bi numéro yaa ngi ci écran bi miel bi. miel bi. am nañ grain bi. grain bi lii yëpp dafay faj doomi aadama. Mhm. kon dal si soxla am nañ boo xamante ne dañ koy wax alxayaat. alxayaat sa bopp nu mu métti métti boo ko fóonee. boo ko fóonee dem na. dem na. bopp bi muy métti. waaw. bopp buy diis. bopp buy diis. wala ngay stressé wu. wala ngay stressé wu di métti. Mhm. nga duy alxayaat bi rek nga am ah, jàmm. nga am jàmm oui mais dafa fort de boobu. dafa fort. waaw mun na baaxee tamit dafa fort de la ilaha illallah. macha allah kon alxayaat daal ngeen bàyyi ko xel. boobu moom bu bu day bopp bi day sedd ci saa si mais am na doole daal macha allah boobu xale waru ko jël xanaa bu ndaw ndaw dee du ko jël xale am na deux ans di nga mën a fam si bopp bi nii waaw alhamdulilah baax na si ñoom trop baax na bi ak miel bi si adduna bi boo na ko faj mën ko faj am na huile xabatu sawda huile xabatu sawda am nañ ko am nañ grain bi am nañ mhm. am nañ cannelle cannelle ak miel boo xam ne keneen la bio la bio la sa tànk suy métti sa ndigil di métti waaw wala sa bi di métti nga hmm. diis waaw boo ko naan rek baax na boo ko naan rek dimbali sa cholestérol bu yëg bu amee jabet da la ci dimbali da la ci dimbali raa sa deret deret bi moom su tilimee waaw wala du cycle normal hmm. da nga am problème da la da lay koy dindil ba pare am nañ coule de girofle avec miel hmm. maanaam xorompol ak lem xorompol ak lem bu am xet bu bon bu lu baax rek laa fi si dën bi muy métti hmm. wala nga am yaram buy xasan wala nga am góom hmm. boo xam nangul te wér wala booy tur ndox hmm. muy métti muy métti wala du ñëw bu baax du ba mu set wicc daf koy dindi ba mu set wicc yooyu yëpp daal macha allah man kay li ma am si produit kay li ma ko te day yokk rek mënu ma ko wax comme daal am na wax ne alpinia lañ ko alpinia alpinia maanaam pour pour xel ne xel ne xel man damaa këru bagage si xam naa ko pour alpinia a waaw am nañ bu xale bu ndaw. Mhm. am nañ bu mag. mais mais comme yooyu tey par exemple président bu xel mi neexuloon bu koy naan xel mi day neex. waaw waaw entraîneur bu xel mi bu koy naan rek. moom pour doomi adama la. doomi adama Aliou Cissé bu ko doon naan mën na dem mel na Guardiola. macha allah gën ko ay. xel bi dina neex xel bi dina dellusiwaat. Safi entraîneur Barça bu ko doon naan xel mi dina gën a neex. macha allah dina neex. Safi temps yi day dekkoon rek de. yow kay ma ne la bul wax dara. bul nañ seet sama produit rek. kon maa ngi ñëw dem Barça wut ci Alpignan bi yóbbul ko Safi mais man nag man nag lii mooy nag wut paaka nag jox ko sa mbokk mu rey la de man ba reyal laa pare jël alpinaam jox ko sa fi muy naan xel muy neex ah noonu wóorul de bu dee ak yeneen yi daal ma jox ko parce que Barça moom saa yi ak onze kañe sax kañe yi laay faral mënu ma ci dara ci Barça. et Perez nag maa ngi koy gërëm président Real Madrid gis nañ euh, taxawaay bi ak Sayer Fall bu nu tekkee rek Perez moo nu tekki loolu ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax. Cissokho Habbatu Sauda ak ban nga def fan foo ñu yóbbuwaat. man fi ma la yóbbu rek. waaw mooy damay wax ni ngi ni may liggéeyee. ni ngay liggéeyee. man ni may liggéeyee. set gi waaw. pour ñu yëpp xam ko mu leer leen. Hmm, ñu gis la ñu bañ la gis mën nañ faju man nga gis man ngeen bañ ma gis mën ngeen faju hmm. ba benn la. benn la foog ñu a baax. macha allah noonu ba mu baax teg leen si place yi. Hmm. former ay gars ñu nekk foofu. su fa fekk si soxo sax ñu nga fa fekk. ñoom basi ñu jublu waaw comme si soxo nu mu lay jàppale. deux mille francs ngay fay consultation. boo ñëwee deux mille francs mooy consultation. mooy consultation bi Dakar. boo ñëwee laaj lan ma sa problème nga dugg si mhm. nga gis ak Bachir wala ku fa jiite. wala mhm. képp ku nga gis ak moom nga expliqué ko bien lan moo la jot. Mhm. ak lan ma sa problème. mu xool ndax da nga war am garab mu bind la sa garab yi. mu junni. mille trente mille quarante mille. nu mu toll mu bindal la mu jox la nga dem jënd. Mhm. wala bu ne ventouse nga dem def ventouse. Mhm. nga wees sa vingt cinq mille. waaw fois li si des nag cinq mille cinq mille ngay mhm. yi. bu dee am nga xaalis nag nga defoon loolu lépp nag jël sa lépp. waaw déedéet da vingt cinq mille première fois. après bu fa jógee. nga dellu si wax saa yoo nga fay cinq mille francs. nga fay noonu la ñu liggéeyee. noonu pare ci. déedéet duñ def loolu. duñ def loolu loo joxe. waaw loolu la lay jox. loolu la lay jox service bis boo ñëwee fee service bii. waaw la service boobu. waaw bu dee machine ba nga ne man dañ ma bind quarante mille trente mille vingt cinq mille quinze mille aw ma loolu cinq mille laa am. Hmm. deux mille laa am. jox la garab bu jar deux mille waaw da ngaa dese dégg wolof dama ne la ku ko mënandoo nag fayandoo lépp baax na. déedéet déggoo ma de. waaw ah. ñaar yëf mu am pour ñu leeral ko nit ñi. waaw ndax ñun ñoo ñu dégloo. Hmm. boo dem ventouse ba. waaw uh-huh. première fois da ngay fay vingt cinq mille. première fois vingt cinq mille mooy ventouse ba waaw. boo ko defee ñu ala ñu xool la ba mu pare. waaw léegi ñu lay jox rendez-vous pour nga ñëwaat. pour nga ñëwaat bu nga ñëw pour faju si waat. pour faju si waat cinq mille rek ngay fay pour ventouse cinq mille rek ngay fay ak loo risque. boo doonee milliardaire ak boo doonee junior. waaw hmm. léegi nag muy pharmacie ba su fekkee am nga garab boo war a dem si pharmacie ba. waaw ñu mel ne la trente mille wala quarante mille wala cinquante mille. waaw wala vingt cinq mille. Hmm. nga dem si pharmacie ba. nga mhm. man awma loolu li la am li nga am moom la lay jox moom la lay jox ba nga amaat leneen ba nga amaat leneen nga dellu siwaat noonu la ñuy faje noonu ngeen après ngay respecté rendez-vous yi nag incha allah lii rek nañu faje Sénégal si mhm. seen boobu laa yor si yëpp chef mhm. si ci adduna moom laay liggéey moom ngay liggéey yow daal mais ku nekkoon France nag soxla consultation ci yow nekk am nañu ko fi def dégg man maa fi nekk yow yaa fi te yaay dem Dubaï yaay dem Turquie yaay nekk fépp may man dem fii France moom Mm. comme France moom maa ngi jaay sama dëkk la. waaw miin nga ko ba mu dëgër. su ma ñëwee si seet sama nit ñi. waaw ma def fi un mois képp ku ma soxla ma jël gis ma. Mm-hmm. su ma demee. ma mm-hmm. toog deux mois trois mois ma ñëwaat. Mm-hmm. ñu del si waat. wala ñu bees ñu bëgg ñoo ñëwaat. après ma bàyyi leen ak garab yi. sa garab jeex nga dem sama gars fii. nga dem jënd ba keroog may del si waat. noonu laa liggéey ak waa France sa adresse France mën nañu ko joxe wala. ne man jox bi jox sama adresse ah, ay code la dégg nga ma ba mu bàyyi moom dina leen wax daal di ngeen mën am bagage daal ci am bagage yi waaw su may ñëw France waaw ndax man su ma joxe adresse ne maa ngi place sangam waaw ah. day fees day fees del te bagante kan nga da ngay bagante te loolu day ëpp day ëpp xam naa li nga wax si kaw ba si suuf loolu moo tax mm. dañuy joxe rendez-vous mais fees del la boobu bayra la wala yor lu baax rek yor lu baax la rek. Mm. <laughs> yor lu baax la rek. <laughs> léegi dañuy dañuy joxe numéro bi. waaw ñu woo la téléphone nga woote. Mm-hmm. ba woote ba pare. Mm-hmm. nga jël rendez-vous. waaw jox la rendez-vous jox la bés ak jox la waxtu. waaw nga xam da nga ñëw rek gis si soxo nga dem sa yoon. gis sa soxo rek dem sa yoon. waaye ndax suñ ko ubbi moom wax adresse bi. waaw day fees ba mu ñu ko contrôler problème daam kon xaaral ma joxaat leen numéro boobu sama adresse la boo xamante ne foofu laay nekk. foofu ngay nekk. waaye am na beneen boo xamante ne sama salon. salon organiser salon. waaw nit ñi ñëw. Mm-hmm. na am lu mat cinq mille ba six mille personnes. cinq mille ba six mille personnes. un journée benn euh, téeméeri junni nit. benn junni. juróom benn junni. juróom benn junni nit waaw. commencé suba guddi. suba ba guddi. ba guddi. di consulter di faj di ñaan. di consulter di faj. di eh, di par di jox ñi garab ñuy dem di ñëw. Mm-hmm. ñi jaay rek garab yi ëpp nañ trente personnes. trente personnes. fés boobu góor ak jigéen. ñu dem chinois yi jënd. après ma bàyyi dem. Mm-hmm. après ma dem toog suma place ba. waaw ñu bëgg ma gis ak ñuy gis ma par jour. waaw par cinquante personnes wala personnes par jour. Mhm. ma gis ñooñu bari benn benn. salon bu bi moom personnes ñooñu waaye personnes. cinq salon salon bi. comme Zara ah, Foire kon kon xaaral ma joxe bi parce que ñi ko soxla bu baax na bu baax a baax si soxla ba Soda koo xam ne que yaa ngi ci biir dëkk bi fii ci Europe bi wala France da nga def 77 661 52 77 661 52 32 beneen bi 77 145 53 53 77 145 53 53 SHS Sissoko Habbatu Sauda Isaaxa Sissoko nekk ci France ak euh, bu dee Dakar fi taqaloog yëngu leen bu dee nga bëgg bagage tamit nga fekk ko fi taqaloog yëngu leen nga ñëw fa la nga bëgg. wala Médina rue 1 angle 12 angle. 12 jiite moo fa nekk. wala wala nga dem Kër Masar nga fekk ko. Eh, Kër Masar ah, ah jekkite waaw Ndeye Fatou. Ndeye Fatou. nga fekk foofu. Mhm. si Saint Lazare. en waaw bu la neexee tam nga dem Tektal boutique fekk fa Oumou Ndour 77 108 51 51 ci wetu station xaar yàlla Tektal boutique boutique boo xam ne ku jege foofu di laaj produit yu baax yi rek. fa lay dem xooli ko fa bu baax a baax Tektal boutique du lu ne fay dugg kon bagage si soxo xabar sawda mais la jot ñi ko yor dinañ wuyu bu baax. parce que dinañ wuyu dinañ wuyu bu baax ci whatsapp bi. boo amul nga bàyyi message. dégg ngeen ko nee na mu comme kii wu nga bàyyi ko message sa et puis yi boo ci jotee mën ngaa nekk Espagne ñu jox la numéro bi nekk Espagne nga nekk Mauritanie ñu jox la ka nekk Mauritanie nga nekk France ñu jox la ki nekk France nga nekk Sénégal ñu kii la yow moo tax numéro si sax boo gis rek Euh, tanteel foofu dina di nga am li nga bu baax a baax a baax a baax a baax ak sa groupe bi tamit groupe bu si saxoo xam nga waaw waaw groupe Facebook bi ngi ci Facebook bi waaw Eh, YouTube fépp Sissoko Habbatu Sauda daal. international YouTube moom boo duggee Sissoko Habbatu Sauda wolof rek. wolof la di nga ko gis si Sissoko Habbatu Sauda oh, wolof rek. dinga nga ko gis bu baax baax ak gën di defi émission yu baax a baax a baax léegi Sissoko. Mhm. ba fan nga ñu yóbbuwaat ci li des ci waxtu bi comme bëreetul. Euh, ay huit minutes ñu des lan fan nga gis ne bëgg lii am na njëriñ te ëpp naa bañ a wax ñu wax ko. alhamdulilah rabbi alamin Cheikh. waaw xam nga ku jaay Habbatu Sauda. waaw te mu jàng ko. waaw mu am si diplôme am. am ci diplôme mu dem di ñëw. dem di ñëw Eh, di toog ak ponkali àdduna bi sama a chiffre yi. waaw sama CD waaw ñu ngi si internet bi sori ñu. ñu ngi ci waaw. léegi nag li may wax lépp li may mm. expliqué nit ñi yëpp. waaw mooy sama jaar jaar. sama jaar jaar sama liggéey yi. Mm. képp ku dëgg eh. foofu ñëwaatal ñu fa da ngaa jàng Fass Touré. waaw. ba jàng alxuraan. dama jàng Fass al alxuraan. Mm. ba mokkal ba mokkal. jóge foofu ñëw Gàmbi ñëw Gàmbi ne foofu xam jàng xam-xam jàng xam-xam yàlla nattuma ay feebar may feebar di feebar di feebar da nga xiiboon noonu quoi maa xiiboon noonu depuis ma xale hmm, mais ngelaw li mosul laa daaneel déedéet ah ok maa xiiboon noonu rek nekk si feebar xiiboon noonu rek kon bu doon xeex da lay gañe sëñ Abdou Aziz Touré waaw yàlla na ko fi yàlla yàggal ba ma ne si soxo mm-hmm. comme yàlla dogal na bi am nga am xam-xam si lii mm-hmm. fexeel nga ñëw Sénégal ñu mm-hmm. ne Modou Fass mel ni Sénégal ak Bintu Touré ak man ñii suma mbokk daara yi mbokk ki la doon jàngal te lay lottal ak yëpp ki doon jàngal ci daara ji doon noggutu tuddaale ko nañ bàyyi boobu ah ñu bàyyi noonu ñëpp sama xarit lañ tumuranke bëggul ko bu koy nettali sama <laughs> mbokk yi moom waaw jàngal ma li ma mën a wax daal dama leen gërëm di leen sant rek waaw ndax lépp lu ñu doon teg foofu hmm. ñu yarul la ñu tegu si yoon ñu xam àdduna hmm. yàlla dogal neen xam-xam tey hmm. macha allah fu ñu mënta dem si àdduna bi waaw fu ñu dem dañ tiitaroo Fass Touré dañ tiitaroo Fass Touré Fass Touré lañ jànge Fass Touré moo ñu yar def suñu alquran def suñu diine léegi lu am si àdduna bi yëpp Mhm. gannaaw bu ñu jógee Fass lañ ko am. te barki alxuraan bi la ñu àndal. macha allah moo tax ñu am li yëpp. Mhm. léegi xëyban boobu nag ma nekkoon Gambie. Mhm. di faju ba sonn. waaw dem Mali. faju ji. dem Mauritanie faju ji. waaw dem Ghana faju ji. waaw dem Togo faju ji. dellu si waat encore. ma ubbi téere yi. waaw gis woo. jërëjëf am na garab yi may war a faj yoo xam ne mu ngi si alxuraan ak sunna. mi ngi ci alxuraan ak sunna macha allah. moom laa commencé di gëstu. sell rek am solo. Mm-hmm. ma gëstu faj sama bopp ba pare dama wér. dama mm-hmm. taxaw mën ma woon toog deux ans lekkuma. Mm-hmm. sama biir bi dafa réyoon ma am problème tànk. parce que ma dox ci damay sonn. dina dimbal ma ba lépp denc si man. ma nekk beneen façon kon bu baax alhamdulilah rabbil alamin maa ngi sant yàlla mm. léegi nag ma commencé di gëstu nag di jaay nañu garab yi di jaay nit garab garab yi ñu ngi koy jël ñu koy jël fu ci àddina bi ma gis ne daal lii daal bés bu ma fi taxaw ne foo jàngee li may wax ne dama ko jàng sa cër dugg fi génn fi waaw moom dina am problème dina am problème ndax commencé na am bayre boo xam ne bayre bu mag la bayre bu mag la macha allah bi day fees del mm-hmm. ma ne xaaral ma dem ma dem jàngi nag nga dem jàngi ma dem Dubai dem Dubai dem toog dem toog uti place waaw toog jàng am sama diplôme gëstu mm-hmm. gëstu di am samay tàmp boo xam ne ministre de santé bi moo ko tàmp sama papier mhm. imarat bi après ma door a génn nag mhm. jublu Afrique jublu Afrique jàng li ma jàng ma defar ko Afrique nga def ko gaa yi ma wax ne mhm. si soxla lu tax doo toog fii doo toog fii maa ngi sant koo laa koy wooyee waaw bu sëyri bu sëyri bu sëñ Abbas Sall. Abbas Sall eh, sama xarit ci Dubaï. ku baax la lool ku baax ndeysaan ndeysaan ku baax amal ma yéene lool ñu ne ma si soxla ñëw nga xam nga ñun bu ñu waxee. du ñu am ay seede. Hmm. bu séeréer boobu dafa ma ne si soxo ñëwal fii bëgg na nga toog fii nga ubbi fi place. nga ubbi fi place nga liggéey di nga mën am fi dama ne ko waa baax na dégg naa la. Hmm. bañu gu ma de. waaw waaye damay xaar bi ma dëgër Afrique bu baax a baax. ba dëgër après ma ñëw si réew encore. macha allah waaye su fekkee xaalis rek laa bëggoon. waaw bu sori wax damay toog si dëkk arabe yi rek. toog fa rek lekk am fu nekk. dina am fu nekk mais da ngaa bëgg ndam macha allah ma bëgg mm-hmm. ndam. léegi nag dañ ma bàyyi ngoom Afrique. waaw ma ñëw di compte toog sama jàng bi. waaw sama produit yi. waaw jógee Syria jógee dëkk bëri. boole Pakistan mm-hmm. ñëw. Dubaï. ma digale yëpp def ko si conteneur. waaw ñëw Afrique ko. Mm-hmm. emballage ko. def ko si ay packaging di ko hmm. jaay nit mu doon nit ñi ko jël di ci bég di la ñaanal. di di faju di wér mu yokk di wér. di wér mais mag ñi di la gërëm. mais kon di jàng nag. ba léegi maa ngi jàng ba léegi yaa ngi gëstu. ba léegi maa ngi gëstu. Ah, lan nga yaa ngi gëstu loo xam ne que nit ki bu ñëwee fi mu taxaw même pas cinq minutes lu ko dal mu tane wala. li ko dal mu tane. mënu ma loolu ah. mënu ma lool moom. no mais yaa ngi koy gëstu. ma maa ngi mënu ma loolu. Hmm. man li ma mën daal mooy jox la garab nga faju jox la nga garab nga faju dama mën ma mocc la alxuraan nga wér hmm. jox la garab nga fa naan. Mhm. nga am wér-gu-yaram. nga am wér-gu-yaram waaye nee na dinaa faj cinq minutes trois minutes quatre minutes. Ah. am na ñoo xam ne dina daan suma kanam ma te ko ma pompe ko mu jóg taxaw. nga pompe ko mu jóg taxaw. na xam. waaw mënut a jóg. ma pomp ko mu jóg taxaw wala jinne jàpp ko ma pomp ko mu jóg taxaw loolu moom alhamdulilah yàlla may ma ko waaye faj nit ki moom trois quatre minutes mm. boobu moom mënuma ko wax dëgg yàlla ah. jigéen bu ñu mu bëgg a mucc ci opération loolu césarienne xet yooyu mën nga ci dara euh, pour mu mucc si césarienne waaw pour dal ma lan moo ko dal ba mu def césarienne mm. foog ñu xam ko ba pare mm. bu ku ko ragal nii rek mu dal ko mas dal am nga prévention da ngay jël xelba ñu ngi foofu xalba xalba ok ngeen dégg ko xalba mm. mu ne boobu boo ko jëlee di nga am jàmm bu baax a baax a baax a baax a baax incha allah ak ibil ko jël tànk amoo ñetti weer la incha allah léegi waxtu benn dab loolu tàggoo bu dul tàggatoo koy ka gërëm ak soxna yi maa ngi sant ñaari waajur yi ba pare sa ñaari waajur yi di la ñaanal ñu yàgg fi te wér ñu yàgg fi te wér amiin sama mbokk yëpp ma lay ñaanal mhm. sama xarit yi sama am di jàmm maa ngi di sama liggéeykat yi. waaw ñi ma àndal liggéey si. saa ko doon waxal appel vidéo léegi Gambie kooku kan la kooku fonk nga. kooku mooy directeur bi. mooy directeur bi. Baaxal Jeyte. Ba. Baaxal Jeyte. Baaxal Jeyte Baaxal Jeyte si soxo fonk na la sopp na la. déedéet kooku. dafa doon jàmbaar rek. kooku macha allah sama liggéeykat yëpp jàmbaar lañ. Uh-huh. waaye kooku mooy chef. mooy chef ñëpp ñëpp. dinaa si soxo. waaw kooku mooy chef bi. maa ngi nuyu Malick tamit. Malick ngi am. Mm-hmm. man bu ma amee fukki at ak si liggéey bi. waaw xamale moom am na fukki at ak ñeent. la ila dégg ngeen ko. am na fukki at ak ñett. waaw baax a commencé ak man baax a ji ma doom. ànd ak moom. Mhm. am na ñu sonn kat yi ma tuddee doom sax. waaw waaye baaxal la moom. baaxal li macha allah ku baax la. turam yi dafa ne baaxal li ah. Xalil Ibrahima Xalil Jeyte ah Ibrahima Xalil Jeyte ok. Mhm. Ah, Ibrahima Xalil Jeyte baaxal baaxal ma suñu papa Xalilu. waaw suñu papa Xalilu. suñu papa Xalilu si soose. si soose ok léegi nag. Mhm. boo demee Mali. waaw de mu ngi foofu. jàmbaar la jàmbaar la. Sidi Jité. Sidi Jité boo demee Sénégal. Mm-hmm. Mahamadou Jité mu ngi foofu jàmbaar la Jité ma nga fa Medina. Mm-hmm. boo demee eh, Nord Foire. waaw Malick mu ngi foofu jàmbaar la mm-hmm. Malick mu ngi foofu jàmbaar boo demee. foofu Moustapha mu la. jàmbaar Moustapha Moustapha. boo demee si Fatima Doucouré mu ngi foofu. Fatima Doucouré ak Fatou Diakhaté. ak Ndeye Fatou Diakhaté mu ngi euh, foofu Fam Mbaye Koyaté. Fam Mbaye ñoom Mhm. infographiste bi Baye Amar nga moom liggéey si infographiste bi. Mhm. ñëpp ay jàmbaar lañ. man kay. su ma léemee. da nga mhm. France mi. waaw sama liggéeykat yi macha allah. si man. ku ma wax sa tur ak ma waxul sa tur yëpp ngeen jéggal ma. waaw ñëpp jàmbaar lañ daal. si gàttal ñëpp jàmbaar la kontaan nañ baax a Soda gërëm nañ ñëpp gërëm nañ équipe technique boobu gërëm nañ Ousseynou Ly Allemagne jàpp na ci yoon wi bu baax a baax a baax taxawunu bu baax a baax Mamy Danfan res na hôtel yi hôtel yu luxe yi nga xam ne que ñu ngi fuuy ci biir dëkk bi di fuuy di ñangal ñu joxoñ hôtel yoo xam ne que dañu mel ne du laal suuf ñoo fi fi nekkoon sax moo dàq fi Mbappé nekk Mamy Danfan def na loolu bu baax a baax xarit ji ne ngi si suuf que <laughs> moom du Mamy Danfan ay doom bàjjen lañ ko gërëm nañ Cheikh Bara ñaay moom it jàpp na ci yoon wi bu baax a baax taxaw na ay lim def moom billaay sëriñ bu dëgërul boo boo defee lu mel noonu tem nga sànni sa capital mu joxe ko. Cheikh Bara Ndiaye em yi deux la ci joxe tegal ci laneen nag ak laneen ak ak yére lu ne kon yàlla na fi yàgg te wér bu baax a baax Mamy Danfa la Sayer Fall moom bii avion yi dëkk yi ni dem yëpp moom moo ko res. dëkk yi hôtel yi yeneen yi lekk yi coob yi fu mën di doon res na ko bu baax a baax ba ma sàmm ju caméral te bàyyi jigéen ñi ngay xool jigéen ñi mënoo leen jeexal ba ma yamal ah petit yemal ah ngeen nekk nit docteur Wade Ibadou la moom soxlawul ñaareel moo tax yem na ah Mamadou Guèye nekk ci caméra beneen bi tamit Pati Sey gërëm nañ ko bu baax a baax a baax équipe technique bu Tektal TV daal noonu la woon ñëwoon fii ci Paris ak si soxo xabat sawda yoon bu mujj ci biir émission bi 77 661 52 32 77 661 52 32 beneen bi 77 145 53 53 77 145 53 53 gërëm nañ équipe technique bépp ak soxna Damay Diop ci réalisation ak sëñ Mbacke sëñ Fallou Mbacke Diop ak soxna Seynab Diop ak soxna Fat Jaxate ak ñëpp ñi nga xam ne que ñu ngi bëggee Tektal TV bu baax a baax a baax xewal dikk loraa nga dëkk Tektal TV télé tollu ko fi S S S S S si soxo xabat sawda jaajëf waay jërëjëf